مخبتين شيخنا الشيخ سعد بنينا فعافني يلا جمال ما فعافني يلا جمال السماي دوم فعافني yàlla jàmmalal samay taalibe ci fitna yi bàmmeel ba mel ak xataay baag lu ndamaay ba Cheikh e na Cheikh Saad Bou ngay ñaan yàlla di ñu ñaanalel moom saadal wara nga ko ni yàlla nga tàggu kër ga di jooy ñu xam ni yàlla moom moo Segana Suruh singai sangga Betawi gajah kisah kisah kau dedok Manajuk Enggak kami ya lamamai Beram jami Fa'afimi siapa siapa pun ini ya layal Nang majamal cibir bame Laksamai dom ak samay taalibe sama dosa saadal wara neena fa afini ya rabbana min fitan wal qabru la yadumuni ya nafiu illa illa abidin ma yara rajo aw sa'dan yéenuh minna yàlla maa ngi lay ñaan bu ñu ma dencee ba dem am na ñaari malaaka yu ñëw muy Munkar ak Nakiir xamuñu askan xamuñu alal xamuñu daraja yàlla yàlla na nga leeral sama tontu eh, la nasaan al malakayni minna waasil qabra wa faarijal kurub وحمي وقافر زنوب شيخنا شيخ سعد بنينا يا نور يا نور يا الله يا غلر سني بامل يا نور يا منير درامي ايدرا نوي دري هي بنور دامي وفي انا حبيب نور الرحمة من بدك القريب يا ذا النعمة حتى تكون في الجنان رادعة في المدة القبل وكل رافعة ودود سخي باميل جيتي باميل ak janklaari bàmmeel yàlla maa ngi sama yaram waduudu usuudu wa duraabu min haqini fa kulluha adaabu la yeddu mu niya yaa naafi nee nañu bàmmeel ku mu mën a doon doon xataa Seydina Muhammad sax ba mel dina la naj amul ku ci mucc dina la naj ba dajale say faar ba nu juwaloo waaye déggal Cheikh na Cheikh Saad ba nu muy tinoo yàlla nee na ko boog yow yàlla bu dee ba mel mënuma bañ a naj yàlla na mel ni ni ndey di naje doomam bu koy nàmpal

wéyjur yi ah, jërëjëf Baye Cheikh Djimbira yàlla na ko yàlla jotale jotale ko it mbooleem niiw jullit yi ne ci biir suuf ah, képp ku ne rek am na koo demle yàlla yàlla yërëm ñépp waaw ah, te jéggal leen ndax moom rek la ñu xaj ci moom moom xajul ci ñun sama baay daf daan wax naan yërmandeem sax jim koy ñaan su ëppee gaañ ñu ko yermande yalla mo nu muy gaañe mu ne xanaa du ndox yermande la ñu ko lay yermande la mu ne waaye gis ngeen ko bu joro suñu kaw ku ne commencé jambat nan mbënd meeg ndox ma ngi bëgg a rey xamatuñu lu ñuy def kon am sax bu ëppé gañi motax tax ba muy wax ak safara ba ñu yont yalla ibrahima ca safara mu ne ko ya naru kuni yow safara wi bardan Jaya Monrek, gunawan ne woon safara Absir seddal rek ab sedd ibrahim Wede da caa teg bardan Salaman, salaaman seddal seddu Jamut, ci Dina Ibrahim moo Ibrahim, maam Ibrahima sedd safara wa fay ba noppi daal di nekk péex moo xam ah te yàlla ci maam ak xarañam boo demee tey ci Istanbul fa ñu ko sànni woon Cheikh Mat da ngay gis ne mat yan juugoon yëpp safara wa daa mujj ko doon am ndox fofu legi dex gu mag la genre piscine bu reuy safara web am ndox la mat yan ko xambe woon it matt yi yëpp soppali ko ay jën way jën yoy fi ne da ngay gis muy daw ni ci bir ndox mi way kenn du ko lek kenn du ci nop kenn du ci def dara kon yalla kum ne mën dara rek war nga koo gëm yàlla taxaw ci suñu mbir subhanahu wa taala Allah yàlla buur moom sama xarit la tabarakallah dama bëggoon rek ana gaa ñi yoroon fii ah defe naa ne warul leen sori maa ko wax léegi ndax xam ni bu may rocc ko rek ngeen di soog addiwaat waaye dama bëgg bala ñoo def dara di continuer damay laaj addiya yi Cheikh ah ndax Cheikh ah yonent bi rek la maamam daan wax naan man Cheikh teral ab rekama jaral dem jël alalu jambur bu ma ca génnee ñu ñu ñu yóbbu ma ci wal lolu am serif rek ko jaral néna waye waaye nañ lolu nak loolu nag am ndax serif bu daan ñew rek lu jamono nakari nakari daan nako fekk mu uh, faggo fa tabarakallah lu mu terale wa kër yonent bi kon nak yaangi ngi uh, serif pap ay dara ah yaay xam inshallah allah ni ngeen koy doxale dama bëgg ku nekk rek ah ci wërsegam uh, na ñew Ah, fekk ma fii ñu laaj addiye ji ana xaadim waaw kay dinaa ñëw ci eeru eeru maam Cheikh bi waaye nag tey dama bëgg a way wallaay ndax nag ah, ah, balaa yàgg sax dinaa ko bindal aw way insha allah muy Cheikh Saad bu Jimbira ndax teewaayam taxawaayam ci xilaafa gi rafet na uuf na njaboot gi fa tabarakallahu rafetal na wit ginnaawam soog dem kon nag faaw ñu bàkk ko waaye air bi nga xam ne ci laa koy dugal ñu rendre ko ci hommage mooy Nabi Moustapha dama bëgg jigéen ñi ñëpp ñëw def ci seen wërsëg te yàlla rek tax lii du sarax waaye nag wareef la boo xam ni ñoom fu ñu fekk rek ñoo ko moom diggante kër Cheikh na nag te kër Cheikh ji bi man sama yoon newu ci <laughs> waaw kay mi ngi noonu ñu way Nabi Moustapha bu ñu tamit dugg ci Jazbul Xulub bu Cheikh Ahmadou Bamba Xaadimu Rasuul a ah, bégale ko xaadim waaye bàkk ci it Serigne Baara ndax ku ne xam na ni ah, kër gi Cheikh Modou Baara Sène ah, maam Cheikh da ko daan wax ne ko mu ma ko nett ni ci sama nopp fii ci néeg bi mu ma maam Cheikh daf ma daan wax ne ma yow Modou Baara da ngaa am sens ñaari yoon ndax da ngaa am cër ci kër Serigne Touba ba noppi wëlbatiku amaat cër bu rëy ci kër Cheikh na Cheikh Sall ah kon nag e, Cheikh Modou Bara loolaa taxoon fu ma mës a koy loxo ndax xam ni Cheikh ma Cheikh Saad bu gërëm na ko waaye Cheikh Ahmadou Bamba Xaadimu Rasul gërëm na ko bu ko defee addiye dina bari lool waaw dugal ma ci jigéen ñi xam naa am na ni on soro kuma mboor gi seen tànk yi demet demal demal dugg ci biir waaw ñu jox la bàcc bàcc demal dugg ci biir ñu jox la demal demal <laughs> waaw kay نبي المصطفى خير الانبياء نبي المصطفى من مالك الملك سلام عليك يا سلام خص بيدي من يا من له شفاعة خص بيدي yal na yàlla faj sa aajo yaa man lahu siyaadatu sayyidina Muhammad yaa man lahu يكفي يا سيدي كوسا سينا سيخ ساس بدي فمين مغال سادا سنگو مام شيخ جمبيرا ku bëgg seen seex sax ba sa xoolee ñoom magal saadal wara sant maam seex

يحمي بلا سبب بوس من حرحت ما بكريم خرجت ما بكريم مع مصر الولي من لا شريك الله باسمه وبجاد سيد العربي ما مثل البحر القدسي به نبي الرحمن ذي البرم يسر مرادي وياسر سائر طلبي شمس يا صاحب النبي من يا يلا ويا ذا الجود آماني نانا يو يلا يا ذا ويا ذا الجود آماني إني فقير إني فقير من أين هاجنا ربي نانا يسر معاني Baisha tali bayak sedatek menanang adramik sidubu ya mami siribe aidara Nana yasima arifanna wahdiha ijana Ma'amani minal aksai Huwal kabir Jaina Samadurana Baay Seex Saad Boo jimbira jena sama turando Seex na Seex Saad Boo jimbira caatu maam Seex man nalawna moom la dupe Siap dimerdeka pembeguan siap nasihat sabu Pak amuluan sagwatnya siap sabu jasemi Ngir pagi mau begitu rendam siap nasihat sabu lebih Baina nama baik dugo nanti kutemba Nyonyoki siap dimerdeka siap sabu nalau na Nafatun du sàkku sama moomi waaw ñu ne ko ndaxam sàkku sa maa nga ca teen ba mu ne billaahi wallaahi deewul ñu daal di ne ana Cheikh Saad bu mu naan ko naam baay jimbira koko nalaw bisu dapat tontu dalam Cheikh Saadul Abi Cheikh na Cheikh Saddu ñaar nyar, fan ak di besok alxames ci la wuy waktu sunu borom Nanti wañu naan diggante tisbaar ak takkusaan Cheikh Waktu Jimbira al bésu alxames ci waxtu wañu naan diggante tisbaar ak takkusaan kon moo tontu Saadul Abi وطناني كبير خمول ينسيخ صاد بوجي فراء بالله وليونا لونا سنواجدني وعادلني السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من فقار ما لم تنه نساء يوم نارت بيوتي أمة وهب من فقار ما لم تنه نساء بربرير أربد بقى قلبك بن رجل سيدنا محمد ಬಾಗಿಲ್ಲ Nabi Rasul tak lulamat ya mencukir cipergi tak bukan berek insyaallah ni mana tahu no pelut Allah kebemer ini tebemer ni di dina nyukin sini ger ger dalal aigam bak putol ni Syekh Sakti Jimbre di Khalifah Syekh Jimbre tak bu fi joge na ngeen xam ni gan insyaallah dina wacc fi bu defé rek ñew wajal ko insyaallah jam mana definnya ñaan yi fofu te kon nak ñu dem istiara ah degele ko njabotu cheikh ahmadou bamba khadim rasoul yeb ya. inshallah salli ala muhammadou masaan yek yek yegg si beneen Ndeye Fatou fi ma wo rek ma daanu ci suuf ba sama xol bi day sedd bi ndeysaan noonu la ma ko daan waxee yalla ko yalla yërëm rek ginna ginna ginna munu maana Jesus